السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين بوك عبد الله جاي مولين نيو وات زيارة في تي بيس بو ماك دو ام سولو بي دي يوم عرفة واي دي نيو في تي عرفة ما شاء الله دي نوك جولي دي في عدنا يب تي بيس بو ري بي خير خير بو ري بي بيس بو ام سولو بي دي فاتن جيب ني وخد يالا يين يا خمان تي سين اير جوتو غول كو تي دار لو غونا وور بوك ماني ريك فاسيني لي يين نغا وور في ني ما رن موي عرفة في لا يونس تي عليه الصلاه والسلام نيوون ني alxajju arafa mu ni aj mooy arafa macha allah kon xam ne ni tey jii la yonent bi lan mooy arafa xamoon na lan mooy safa ak marwa xamoon na lan mooy tawaaful ifaada xamoon na lan mooy ihraam waaye teewul la alxajju arafa la yonent bi waxoon di aj daal boo bëggee xam dëgg-dëgg mooy lan mooy arafa fii mooy fi nga xamante ni fi la ñu war a yendu fii la ñuy jullee tisbaar ak tàkkusaan buñ ko fi jullee dañ leen di boole ba pare wàññi leen waaye fii la ñu timis di fekk lay wan ni la affaire bi du logique waaye ay règle la timis li muy xat-xat xam ngeen da ngay dégg ñu naan leen muxtaaru timis dafa gaaw waaye tey doo fi jullee timis doo fi jullee gee yooyu yëpp fi solo waaye da koy dajale yaa ngi koy jullee fee ngay jullee waaye fa ngay jullee gee muy lu am solo loo xamante ni lu jar a bàyyi xel ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni ñu ngi ci béréb bi bu ñu foog bu ñu caaxaan nañu xam ne ñëw nañ foo xam ne wóor leen ndax dinañ dund ba déwén pour man fee ñëwaat te gis ngeen jox naa leen ko yóbbu benn mbokk nee na ñaan na boroomam ba tey ci bisu arafa waaye seet na ni musu la ñaan yàlla lu mu ko defal ci bisu arafa nee na saa yu masaana ñaan yàlla